auzu billahi mina setan rajim auzu billahi mina setan rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam ñu ngi gërëm suñu wajur di nuyu kilifa diine ak kilifa aada ñaan borom bi subhanahu wa taala mom ya rabbi mom ñu dellu Nyaman wat ci plateau bu mag bi ñu amaan mbégte ak contante lool nak ñu wat fi jaxarlo kep ko xamantene ya ngi bayyi xel sa suné ci la seen leader am contante lool nak jaxarlo sama ñaari doomu benn yi les trio de lay am ndax nee naa leen 15 bu jot su ma jàkkaarloog ñoom rek sama xal day féex ndax li ma leen di jox dañ ma koy delloo ba mu neex xam fa nga jëm nag daje ku ko xam mu teel laa woon fa nga jëm dafay neex waaye boo xamee fa nga jëm ba noppi daje ku la gën a xam yoon bi yoon bi day gën a neex macha allah ba tax na mbégteeg bànneex laay am bokk ak ñoom plateau yéeg-yéeg bu rëy laay am bokk ak ñoom plateau macha allah du nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan muy suñu mbokk internet yi ñu ngi leen a baax ndax nag coow li coow li yéen a waaw coow li coow li yéen ñu ngi nuyu ñi caabi féete ginnaaw ñu ngi nuyu ñi tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di bëggé ya, nah, bu baax a baax ndey faatu ñepp ñoo ñi bëggé ñu ngi nuyu ñi nga xamanté dañoo ne ci biir kër yi ta tawat lool nak yalla xam na ko ñu am accès ci hôpital yi ndax ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ñaanal yalla suñu borom saafara yaram bi te yalla yombal doole poste bi ba kenn ku ci nekk rek sa yo wopé nga mëna waxu ci ci bërëb fajukaay ba faj sa yaram amat contenté lool nak bayila nga nuyu ñu ngi seetaan Ousseynou Diop. waaw salaamaaleykum yaa Aïssa sama dama naan salaamaaleykum it waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal à travers scène bi nga xamante ni mooy la scène leader. di nuyu tamit sa nga xamante ni sama seex la sama naataango la muy Ndeye Fatou Mbaye di la wax ne tamit namoon naa la dama naan eh, yaa Aïssa Ndeye Fatou léegi sama diggante moom téléphone dong doyu ma si. ndeysaan voilà di dend ak moom moom moom si biir plateau bi daf may neex. <laughs> <laughs> parce que pelloo bi nga xamante ni moom eh, moom la ñuy pelloo maag moom. Uh-huh. des mu sànni ma xel des fois ma jël benn brique sànni ko ko. Uh-huh. loolu loolu daf may manqué. kontaan bu baax a baax nag si ñi nga xamante tamit ñoo ngi seetaan bu baax mm-hmm, euh, parce dama lépp tamit ñoom la ñoom ñoo ñu dooleel ñoom ñoo ñu may tey fit tey ñu ñëw taxaw fii tey di wax parce dafa neex mm-hmm. euh, mais boo waxee te amoo kenn ku la seetaan amoo kenn ku la may isam wala tamit nit woo la rek ne ah, tey jii kat naa loolu mbégte bi muy def euh, si ñun mm-hmm. kenn xamu ko mais ñu leen di ñoomit jaajëfal bu baax a baax a baax jërëjëf yaay may ne mu ngi noonu toujours rek yaa Aïssa di la nuyuwaat. Uh-huh. di la ziar. Uh-huh. du ma tàyyee di wax namm naa la. lay ndeysaan maa la raw euh, su ma toogee cinq minutes gisuma la rek. dëgg la ndeysaan euh, di amaat contentement bu baax. ci uh-huh. suñu dajawaat. di nuyu Ousseynou sama seex. chéri aram di nuyu sama jéeg boobu de passage nga xam wax dëgg yàlla <laughs> daf may toppatoo wax dëgg yàlla. ni mu fi mu teg Ousseynou jëkkëram la ma teg maa ngi koy nuyu bu baax. di ko sant di ko gërëm nga xam ne lu ne lay jëlee sédd gi ma ko yónnee. macha allah di leen nuyuwaat di leen ziar. di am contentement. waaw di wax fii la rek la scène du leader fii la waat rek comme ni ko doon defee chaque jour rek du ma tàyyee di ko wax waaw maa ngi nuyu ñëpp nag suñu mbokk internet yi di ziar ñëpp di wax rek ñoo ngi nii yaa ay sa ak njabootam comme ni ma koy waxee chaque jour saa su ne macha allah les trio de sob mbégteeg bànneex laay am jàkkaarloo ak yéen mbégteeg bànneex laay am di diyo ak yéen macha allah Ousseynou tey ñu indi thème bu am solo thème boo xamante ne damay naan bu doon way la ci société bi booy na ay nopp mhm. waaye dafa am loo xam ne dafa garaaw ci biir thème bi muy jëndu saabu bi nga xamante ni macha allah yow est fa mel ni da ngaa dinaa woote ci numéro bi jël yow da ngaa xureet wala ko corona muy noonu muy jéegu saabu bi nga xamante ni macha allah mhm. moom la jigéen ñi di jooy ci seen biir néegu sëy mhm. ay xale yu ndaw war a am borom kër war ay sentir bànneexu biir néegu sëy sa borom kër ne la fa njukk dem jëndi saabu liibar hmm. def ko jeeg muy am yëg-yëg boo xamante ne ci saabu yow mënu ko am ci yow hmm. Ousseynou xale yu góor yu bari say moroom hmm. ñi la mag ñi maasee ak yow jamono ak ñi nga xamante ni yaa leen mag ci âge ñëpp fu mu ne nii seen ngóoro li ci yàlla xam doy na muy lu bari ci société bi Ousseynou Diop est-ce que góor weeru démb ak barki démb bu saxee si ñun war na ñoo mën a toog jàkkaarloo ak jigéen di mastiquer suñu bopp en tant góor mm-hmm. ba ngay yëg sa bopp ngay mastiquer sa bopp ba àgg foo xamante naka su dul noonu mm-hmm. léegi canapé yi ndax dama bëgg a xuus comme ça su ma leen joxee rek mm-hmm. ngeen mën a laal fa sori ndax canapé yi xale yu góor yi xotti nañ ko léegi def ko jigéen di ci sëy lu neex saabu liibar yii xale yu góor yi jël nañu saabu léegi xale bu góor boo gis mu dugg ci bitik rek amal fi topp ko soo ko lëlbatee ba nga àgg fa nga jëm jël na saabu yett ko saabu yett nañ ko def ko ay jigéen muy li garaaw ci société fu mu ne nekk ñun ñu war a xaar njaboot fi mi toll waaw yaay sa comme ni nga ko waxee man fi mu toll nii dama naan dama am gàcce en que góor mm-hmm. parce que tey dama naan thème bi ñu andi ni tey euh, pour ma wax si sax euh, c'est tout un problème parce que fi mu toll nii euh, dama jaaxle. da ngay wax daal parce que da ngay wax. Mm, dama jaaxle parce que dëgg la dëgg ca ba mu dëgg la yaay parce que non non dëggantaan. non non dëggantaan parce que man. Euh, xam nga dama am jabar. macha allah euh, te euh, ñuy dund lu neex. macha allah waaw parce que dama naan satisfaire sa jabar amul dara dara lu ko dàq. Mhm. ak jigéen di ko yàlla bindee. Mhm. ak jigéen na mu na mu mel. Mhm. yàlla baaxee la ko defal la ko sur le plat. nga wax see lekk nu mu nu mu la neexee. nga ne déedéet dama ko fay bàyyi dem wuti ji saabu wala nga dagg canapé taxaw di def noo xamante ni c'est di n'importe quoi mhm. est-ce que yow loolu noonu boo demee ba satisfaire sa bopp ba pare kiim la nga xamante ni moom nga ne mu leen na lii mooy tey jigéen ji nga xamante moom nga soppaliku woon nekk mu nekk jigéen. Mhm. lan ngay jugé ne sa bopp. lan ngay jugé sa sa man damaa jaaxle léegi. Mhm. parce dañoo dugg ci thème boo xamante ni. dafa nekk jàngoro ju bari nag fi mu toll nii ci Sénégal dangaa wax saabu wax canapé yi mat laa ak lu ne laay dégg man waaw dégg naa koo xam ne dane su ma demee ba sentir ko soxlawuma jigéen damay dem tëdd ci sama mat laa yàggul dara mais yaakaar naa ni am na loo xam ne topp sa bakkan la xam nga dañu naan ndaw ci jigéen mais ndaw tamit dañ koo taamu ci góor surtout ndax yow nga nekk xale amagoo jabar di fowee sa bopp di jël ay saabu di xotti ay canapé di tëdd ci ay matelas mais nag nit boo nekkee nit dañuy xam ne nit la boo mm-hmm. nekkul nit nga nekk leneen. Mm-hmm. parce que nit nag jëfinu nit ngay def. Mm-hmm. góor bu ko sàkkee sàkk jigéen dañ leen a teg pour ku nekk mën a satisfaire sa moroom. waa léegi yow soo fi bàyyee jigéen dem di jël ay saabu loo xamante ne nii dañ ko war a utiliser ci leneen. yow nga ne man ci fii laa koy utiliser mais tamit loolu nañ xoolaat suñu bopp. man Mbaye man doguma leen mais dama naan ñàkk fayda weesuwul yow téye sa awra jël saabu. def si la neex. ba ne club daanu ba sa ndox génn ci yow. loolu ba ñàkk fayda la. ñàkk fayda mënu ko weesu. bu mag Ousseynou Diop doguma la dem si guddi rek ndax chaque jour damay naan ñun lépp lu ñu bi rek histoire doomu aadama la ci indi teg ko ci plateau bi. Mhm. duñu làmbatu ndax dañoo bëgg bu ñu waxee ñu ne foo ko dégg. ñu ne diw moo ñu wax. Mhm. xale bu ko bi ma woo démb rek ma ne yaa naqar gi ma am ci kaw suuf te mënu ma koo wax képp ku yàlla bind ci kaw suuf mais dama lay moo tax ma bëgg waxtaan ak yow loolu mu man sama soxna mënu ma am benn plaisir si moom parce que du ma ko sentir. Mhm. gis nga saabu dafa dem ba dafa yàq sama awra. saabu dafa dem ba dafa yàq awraam dafay mucc obligé di protéger wu pour a utiliser saabu te moo mën dëkk ci saabu day saw saabu bi lu garaaw laa lay wax te nit moo ma woo dem si guddi wax ma ko mu ngi may déglu bu dégloo émission bi dina xam ne moom wax lii. dafay saw saa ba mu tooy xepp mu door a mën a yëg boppam. waaw xam nga maman Aïcha yàlla jox la soxna. day mhm. loolu man li ma ciy wax du jàngoro topp sa bakkan la. surtout du jàngoro de. Mhm. non Mbaye man foofu duma d'accord ak yow yenn yi feebar la parce que man kooku noonu li ma koy digal mu dem seeti benn benn médecin parce que yenn yi feebar de. Ousseynou xam nga lu tax ma ne du feebar non non non Ousseynou bàyyil di protéger góor ñi. non ma ne la du ah, feebar. non wax ma may ma rek ma wax la lu tax ma ne la du feebar. Mhm. feebar mooy ki nga xam ne dafa amee ndoxu siti buy ànd ak jabaram munul yàgg ak jabaram kooku mën nañ ni dafa feebar mais kii fo topp bakkanam di fo ba affaire boobu plaisir boobu topp ko loolu munoo wax ni loolu feebar la topp sa bakkan la am ñaari aspect mais Ousseynou saabu ah non yaay sa li mu fi andi parce que yaay sa dafa teg ne kii dafa feeb ne da ko woon ne ko carrément sama jabar lay lay bàyyi na le ñëw jël saabu. utiliser saabu mooy topp sa bakkan bi ma wax. non non kooku damay jàpp ne dafa feebar. mais dafa am si ñenn ñoo xamante ni amuñu jabar amuñu doom amuñu waxaale ñoom ñoom fu ñuy yëgee seen si seen bopp mooy dañ daan xaaral ma dem jënd ji saabu dagg ko dugal ci sama awa pour mën a sëy ak moom. parce que ñaar la kii kii man ki nga xamante ni moom la yaa sa andi. kooku man dama naan tey ji na dem man man lu ma koy digal. na dem seeta kooku dafa feebar. est-ce que tàmm ko woon avant muy am jabar mu dem ko. waaw la. ñu tuuti. ndax bu ñu dégloon te rek danay génne lu am solo. lu askan bi di dund. ndax saabu bu ma nee saabu. gis nga boo ko see ba tàmm dara ci ba ngay ndaw. aussi ba xam nga ne xale yi nga xamante ni tabaskalla dañoo am 14 ans ñam lañu seeni morom. loolu am na xalé yi nga xamanté dañu am 15 ans. xam nañu jigen nan lañ ko utiliser ak xam jigen lu seen waajur yi xamul sax ñoom xam nañ ko. bu baax yaa dégg. Mm-hmm. tam bëgg bon la. ci ba nga nekké xalé ba as ngay fobee sa awra. dañ ko utiliser. nga dem ba tollu ci yena as tam nga masige sa bop di yëg sa bop masige bobu ngay masige sa bop ba yek sa bop mu ngi melni nga jël jigéen boo jàkkaarloo rek à distance amour à distance bi ñuy wax ni imagination la rek imagination la rek amour amour à distance boobu nga nit ki nekk bitim rew yow nga nekk senegal gi ngay and ak mom di sey ak mom ci sa awra muy masige bopam ngay masige sa bop ba kenn ku nekk yek sa bop lolu yaakaar naa ne du mën a la waaw lolu ci bëgg lu la neex la yow mu ni bëgg lu neex bobu bo xoolee ñak éducation bi ma xamanteni mom lañuy wax ci jamono bi léegi ndax bu jëk ba la bu ñu may xalé bu goor ni jaayam wala papaam da nga nan la war a utiliser soxnaam. mais léegi yéen ba yéen bu ñu leen wooyee di laaj ndax xam nga da ngay resté kër nga moom mère bi damaa yab yow loolu la may laaj. parce que yéen xam ngeen lépp aussi yow yéen ma d'accord ci yow tey nii lii. parce que kii ba mu waxee ko ne xam nga yaay sax lii eh, lii démb ak tey ça fait deux ma naan tey dama naan eh, si ñi nga xamante ne ñoom laa ko sañ wax bu ñu gisoon pooj rek daanaka seen aw taxaw na waaw sa jamono yi ubbil Mbathé Ndiaye. mais fi mu toll nii mais fi mu toll nii. jigéen ñi dañ ñu ko yombalal. dañ ñu ko yombalal. parce que fi mu toll nii di nga jàkkaarloog jigéen gis léppam ci moom. Uhuh. des fois nga taxaw cinéma jigéen ne la dugal ma soo paree yaa moom. Uhuh. ngeen fekk si ko si. ñu fekk si ko parce que tamit. kenn du yéen euh, euh, parce que tamit. ma ne ko yéen kenn du yéen. fi jamono toll la. waaw fi jamono toll la parce que fi toll nii jamonoy sexe lañ ne ne lañ toll. man dama naan tey jii génération bi di ñëw. génération taatu neen la ñuy doon. parce que fi toll nii jigéen ñi nëbbatuñu dara dañu ko yombalal ba mu yomb mais tamit man euh, damay bàyyi sax man man ci cadre jigéen mais man ci cadre masturbation bi nga xamante ni tey moo xew si jamono ji te ñëpp di ko def. non du ñëpp sax. non si si ma. du ñëpp du ma la ñëpp man kay xoolal même da ngeen di jël xale 14 ans yi mais am na ay pas. am na ah, ay pas mhm. yoo xamante ni ñu ngi koy def. dëgg loolu dëgg lu seen si dugg si seen i duus. man de Ousseynou Diop dugg seen duus di ko def. lu ma dul d'accord gën a jaxle nga am na banc public yi. am na da dem fekk benn magum jëmm di wax téléphone téye awaam. banc public yi sori na da ngay naan da ngay gis mag mu taxaw ci taatu garab. nga xool ko ba seppale ko bu la dee kii sa moromu baay la taxaw ci garab fa garab ba yattu fa lay génnee awraam teg ko ca di fa riisu mu mel ne riisu yi léegi yematul ci biis yi riisu yi yematul ci kii kon man man du ma ko tuddee feebar Ousseynou parce que nit doomu aadama am na loo xamante ni bu ko yàlla defee ci yow ndax bu delluwaatee ci ginnaaw tuuti dañoo indi damaa indi soxna indi jabar indi soxna ñu ñëw waaye indi jabaru saabu ndax su ma nee jéegu saabu rek mooy jabaru saabu ndax ki teg sama jéeg bi sama bik sama kawlal jéeg bi nga xamante ne tey booy sëkk ak moom boo defee benn mu def ñaar. mais est-ce loolu timit nekkul tamit. waaw mais may ma rek may ma rek xam nga jigéen ñi tamit. waaw may ma rek xam nga jéeg boo xamante ne boo defee benn mu def ñaar xam nga tey xar sax boo ko laalee mu yëngatu mhm. te nit ñi bàyyiwuñu xar yi Ousseynou Diop mhm. yéen góor yi bàyyi woo leen béy nañ ko wax te dee en fait gis nga boo demee bay wax rek nañu wax bàyyi woo leen tey su ma duggee ci waaw non su ma duggee ci te jigéen mm-hmm. damay xuus si jigéen ba ñu foog ne man du ma jigéen mais su ma duggee ci góor tey tey góor lañ fi teg mm-hmm. góor boo xamante ni tey bàyyiwul xar ma ca biir géttam mm-hmm. bàyyiwul béy ba ca géttam bàyyiwul nag bàyyiwul fas bàyyiwul dara waaw kooku tey xam nga ne bu tiimee saabu romb lépp waaye mënoon nañoo li la war a setal yow saabu boo tiimee mu war laa setal nga jël ko yow utiliser ko nga ne saabu cakk bi nga balaa ngaa a am plaisir nga saw bi door a mën a sa bopp nga dem ba mu rocc sa amoo leneen looy xalaat nga jël yow protéger sa bopp mooy xale yu góor di seen mbuus yooyu mais ma xamante leen baa xam nga ne nit ñaari ñii dafa nekk ci moom muy parti mala ak parti nit gis nga parti bi nga xamante ni ci lay sëkkee ci lay defee loolu loolu noonu mm-hmm. parti mala dafay ñëw tant que demul ba yegg parti nitam du ñëw moo tax ma ne la yenn yi feebar la. mais Ousseynou ma d'accord yow feebar yenn yi feebar la. ba coup d'or la non non am na ma d'accord ne li nga wax. non dëgg la parce que yéen ay jigéen ñi comprendre leen. non non comprendre sëy dañoo yore jëkkër. dëgg la kon xam nañ lu ne ci góor ak jigéen. dëgg ju mais problème bi mooy feebar dafa am. Mhm. feebar dafa am. Mhm. mais foo dafa am. dëgg la lii ñu teg fii nii. du question loo xam ne feebar la. xanaa xamoo ñun ni xam nga tey dañoo fi jigéen. non dëggantaan teguma fi jigéen. waaw dama teg góor gi nga xamante ni. waaw léegi mooy jël boppam di ko fowee ba yëg boppam nga def amour à distance. xam nga wax naa moo nekk jeeg ci biir kër yi léegi saabu bi moo nekk jeeg ci biir kër yi jël soxna yi bàyyi leen ci kaw lal yi dem ci saabu yi mhm. loolu laa bëgg ko ji tey góor gi nga a baax baax li mu bëgg duggee foofu di nga daanu ndax ki tàmba def jëf ju bon jigéen mënu koo satisfaire ndax kii dama la ne daf ma ne sama soxna àgg na ma foo xamante ni manqué lu ma dara xale bu góor bi li la wax. gis nga bu dul woon plateau dama lay génne audio bi nga déglu ko weddil góor ñi rek. dana sama soxna sama soxna. manqué lu ma dara. mais mënu maa satisfaire parce que li ma li may yëg mënu koo yëg ci moom ci saabu laa ko mën a yëgee loolu dafa mais loolu feebar la Maïcha. lu nekk feebaru sëy la man kooku loolu li ma koy digal mooy na dem seeti benn médecin. lànk naa wala azim. même bu seetee médecin na dem seeti médecin am na yenn xale yoo xamante ne nag nag ñoom fo moo leen ci dugal fo. gis nañu taxa ndax taxa xanaa xamoon ne image yi dafay yàq lu bare bare bare muy télé yi nga xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy seetaan tey jii tey xale boo boo gis tey si téléphone am la fa nekk si vidéo porno am bagay loolu ci télé bi la daal. léegi yow ma laaj la. télé bi ak téléphone yi. Ousseynou ma laaj la ah. yow kii li muy def nii saabu di ci fowee sa bopp. loolu yow ban ban cadre nga ko bëgg a yóbbu bu dul fo. non non man xam nga tey man kooku noonu. que man xam tey boo demee tey bay yegg tey bay fo ba ne yow tant que sawoo saabu bi. doo yëg sa bopp doo yëg sa bopp kooku noonu jàng man dama ko yëgam mais pas ma koy balaame parce que nit ku nekk mi la nekk ci yow yaa ko xam duma ma ko balaame de mais dama naan ko man na dem seeti ji médecin mais ñi nga xamante ni nag amuñu jabar amuñu doom yor seen téléphone yeeg di seetaan ay x ba mu excité wu dem mu jaral leen ñu dem wuti ji saabu ñooñu yëfu maa tay la. foofu la tàmbalee nag. ndax kenn ku si nekk rek balaa ngaa miin saabu da koy tàmbalee ci à bas âge. Hmm. Ousseynou loolu laa delluwaatee tuuti ci ginnaaw. saabu bi mhm. kenn xëyul rek utiliser saabu. gis nga balaa ngay utiliser saabu da ci mbon nga ci ndaw. Mhm. su ma toogee bu ñu nee damaa fiir ma ne damay tëdd leen ba yàgg jóg muri dara bu xale yi muri mbàjju xale yi ñu damaa fiir damaa dof déedéet parce que man xam naa li may wax gis nga xale bu jigéen bu dugg ci biir mbàjjam sàngu yaa quelque chose xale bu góor bu ne ci biir mbàjjam sàngu am na lu xew kon loolu xew nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane tey jii muy bu jigéen demee ba amatul valeur ci biir néegu sëyam lan mooy valeur jigéen boobu saabu moo ko ëpp valeur ci biir néegam saabu moo yóbbu jëkkëram réew moom a ñu doon ax ah. <laughs> saabu fa yóbbu jëkkëram te balaa mu fa àgg saw kon da ngeen ko tàmbale ci ba ngeen nekkee xale xale yi dañuy teel a fawee seen bopp Ousseynou nee naa sànq 14 ans xale yi xam nañu loo xamul dëgg la loolu moom moom du ma ko weddi balaa nga àgg 17 ans yàqu nga xam nga lu sa ndey ak sa baay xamul mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. kon xale boobu tey jii bu toogee ba yor soxna la mu tàmba ca ba mu daan def ci ba mu nekkee tout tànk rek lu lay màggaale lu lay mm. continuer mm. kon man du ko considéré nit ku feebar mais éducation la rek nii kay ah, ah, sa baaraam mm. lii laa sama woon lépp ci xol la rek éducation bi parce que man dama naan tey jii tey boo amee sa doom man mm-hmm. nga koo saytu bu baax a baax a baax mm-hmm. ca la muy def mm-hmm. ca la muy dugg ca la muy dox lan la ak lan ak lan ak tey dama naan tey jii yaay ju nekk war tey jii xam tey doomam ban doxin lay dox yaay ju nekk. parce que des fois tamit yaay yi dañuy nëbbal seen i doom parce que man dama naan tey jii doom bu sekkee teg tànk. yaay ko xam. Mhm. c'est impossible. wala boo boo boo ko defee tamit qui est irresponsable parce que man dama ju nekk wax na xam doomam ban dëbb lay dëbb. waaw Ousseynou comme man li nga wax sànq man nee naa waa ji du ma ko blâmer de du ma ko xas mais du ma ko conseiller ne ko demal nga faju xam nga faj bi lan la lin mu nekk ci boppam bii na ko dindi mu jël jabaram xam ni jabaram la war a utiliser mu génne saa. mais loolu problème psychologique la. waaw gis nga affaire bi ci xelam la nekk ak ak ak ak ci foom. wax nga ko léegi gis nga bu ko dindee ci xelam jàpp ne jabaram jii mu takk moom kii mu lew ko moom la war a utiliser. dina bàyyi saabu bi mu lii bu fekkee daf ko tàmmoon avant muy takk jabar na ko jéem a génne ci xel xam nga ne waa ji ñëw du feebar ma loolu duma ci d'accord boppam du feebar ba exposé boppam kooku noonu pare na pour loolu noonu denc ci moom Ousseynou man dama naan tey nit ki tey bu demul bu fekkee ne bëggul loolu dañ denc moom du ñëw exposé boppam moom tey fi mu toll nii nemal ne la la la la bëgg ñu wan ko yoon bu muy jaar ne ko kat carrément defal lii defal lii defal te man li ma koy digal mooy na dem seeti médecin parce que affaire bi lépp si bopp la te xel am na ñoo xamante ni ñu ngi ciy liggéey wala Azim bu ñu toog ak yow saytul la wax nañ ne leen na la kat jaaral fii defal di boo ko defee di nga ko bàyyi Ousseynou olof yi dañu naan tàmm laago la dëgg la jeex na mhm. lu mu tàmm la rek ba dem ba mu habitué woo ko ba moom mënatul sax sentir jabaram na jéem a bàyyi saabu bi teg ko ne di utiliser jabaram. du jéem a bàyyi saabu bi loolu a bàyyi saa faatu dem si guddi ma waxtaanee dama ko ne carrément est-ce que bu ñu pour la dimbali nga bàyyi saabu dana carrément man ak saabu à vie. Ah. xam nga kooku du bàyyi saabu ndax mère fi ma saabu du yóbbu kooku fi nga saabu du yóbbu jigéen yóbbu ko fa nañu waxante dëgg. kooku mala la. fi nga waaw mu ngi mu ngi mel ni rek góor bu wàcc soxnaam rek. dem ci xar kon mala la. mu ngi mel ni góor gu wàcc soxnaam dem ci mbaam. kooku man ne ma la laa la laa gis eh, si moom partie nit bi mooy nelaw parti mala bi yeewu parce que doomu aadama bu ne dafa am ñaari facette muy partie mala ak partie nit. kon pour bàyyi. waaw xaw ma mala xaw ma partie nit de waaye en tout cas <laughs> nañu gën a joxaat jigéen ñi kët. Ah, nañu gën a delloosiwaat seen xel ci biir néeg yi. Mm-hmm. xam ne taaru jigéen sëy bu ñu nee jigéen sëy nag taaram sëy kan la war a sëyal day Fatou Mbaye kan war a sëyal. maman Aïssa dañu naan jigéen. buñ ko muuree mu dem sëyi. Mhm. nekkul ne lekk ak naan ak kër gu rafet ak fu mu tëdd moo ko yóbbu kër jëkkëram. effectivement dangay gis jigéen bu génnee seen kër. Mhm. la am seen kër amul kër jëkkëram. tëgg la kon dafa am lu ko fa yóbbu. Mhm. muy sëy te sëy dafa nekk loo xam ne yàlla moo ko digle. loo xam ne dañ ne jëkkër ak jabar ci farataak ak sunna bu ñuy ànd yàlla da ciy kontaan. di la ci bindal tuyaaba kon xam nga loolu du caaxaan. kon nan la sa jabar ñëwee bàyyi kër ndayam bàyyi kër baayam ñëw di la sëyal. des fois sax jigéen ñëw di la sëyal te yàlla rek tax. ndax li war ci moom lépp du ko am. mais mu lay sëyal te yàlla tax benn moo ko fa téye mais loolu bu ko fa amul moom lan lan la fay lan la fay signifié ti moom. moo ci kër gi te xanaa góor gu ne war nga am gàcc sax takk jigéen teg ko ba pare te amaloo ko njëriñ ci sa côté. ngóor loolu gàcce la ah loolu gàcce la ci góor. gàcce mën na koo weesu ah, mais tamit nag des fois tamit ñun góor ñu ñu soxla suñu bopp lool wax leen ngeen bañ. te loolu tamit mën nañoo sànni tamit. te fi wax. non mais loolu loolu amu fi. non dafa am si. mais kii li ma wax loolu amu fi non xam nga tey jii yéen yéen ñi seen bopp rek ngeen xam ak la neex ñun góor ñi tamit la tamit la même chose mais des fois góor sànneeku fenn te jigéen moo ko fa sànni. loolu nga foog walla Azim moo nekk. yéen bu nit sànneeku woon sax lu leen tax xam seen wareef yéen toog ci biir kër gi xam nga tax. Ah. parce que yéen seen i bët fa ko war teg ci biir kër gi yemale ko. fa loolu moom yàlla moo ko bindee góor ba ci bañ na ko ba yàlla ba mu naan góor takkal njëkkeewul mhm. benn. loolu kenn waree taw ko. ñaar la jëkkee waaw waaw kon dama ne xam nga tey jii ñun pour kenn rek satisfaire ñu c'est tout un problème. xam nga suñu borom kenn rek non non non dama la wax góor góor. pour kenn kenn kenn kenn kenn doo ah man boog du ñëpp kenn rek rek satisfaire la. Mhm. c' est tout un problème. ñàkk mais nag des fois tamit nga xam tamit fa nga yem mais pas ay masu beew. kalangaatu loolu moom moom loolu moom non si mënta ñàkk si góor loolu moom góor bu ne kalangaatu ma day fen muy man muy sama mboqam muy ah, keneen ak keneen non madame Diop mu ngi may non madame Diop mu ngi may mu ngi may dégg nëbbu ma li may wax. Ah, non mais non même pas. non même pas <laughs> waaw dala koo dala koo nëbb rek. xaw ma kalangaatu waaye man li ma bëgg ñu waxtaane ko. Mhm. ñu dellu si waat tuuti muy góor ñi nga xamante ni. dañuy jëri doomu jàmbur indi ko ci biir kër nga am njaboot ci jongoma lool mel nu mu war a mel suñu borom am lu mu def ci moom nga war a mën a xool ci moom ba mën a yemale sa lépp ci moom même bu fekkente doyu la defal faratay suñu borom ndax nag yow yaa ne léegi yàlla bu leen boolee pour ngeen di jaxasoo ci biir jaxasoo boobu lu mu gën a yàgg yiw bi gën a yokk mm-hmm. lu mu gën a yàgg moo tax ñu tàmbalee ci ne jigéen boo ko yoree da war a tàmbaleek moom fox. Mhm. parce que xëy nag na këlëb dafa yomb. moo tax ñu bëgg jigéen du foo ak borom këram borom kër du foo ak soxnaam. Mhm. waaye dafa bari si góor ñoo xamante ni may ñu seeni soxna fu ñu mën a foo ak mhm. parce que xamu tax benn amuñu patience pour mën a àgg sa jabar fu mu war a àgg. amuñu ko am na si góor ñoo xamante ni yàqamti nañu seen àdduna ba nga xamante ni dafa nga ne bu jigéen ne xaraj buntu rek da ngaa war a ñor di def mbot. xot mi la xale yu góor yi war a baax. <laughs> tey jëf fi dama remarqué day faatu ñi yor soxna ñoom ñii seen génération bii ku ci yor jabar. Mm. ni ngay communiquer ak moom boo amee gal ca mbedd ma ak ni ngay communiquer ak moom dafa bokkul te pourtant jabar jii ba nga koy indi ci biir kër gi dafa amoon foo njëkkee woon ak moom ci kaw suuf muy naxante ak moom. dabu bànnee xam ba nga indi ko sa biir kër kon kooku boo ñëwee même boo dee wut fukk ci biti it aussi ngay wut di kalangaat comme moom ni mu koy waxee na fexe ba jigéen bi ci biir kër gi na xam valeur ni ma laal non da nga laal fi neex rek am naa valeur ci biir kër gi mm-hmm. sama borom kër rek mm-hmm. mais aussi nu yéen xamoo leen valeur yi si ëpp ci yéen seen nouvelle génération xamuñu valeur ci non da laal fenn foo xamante nii daf ma neex trop mu nekk communication entre jëkkër ak jabar mm-hmm. mais suñu génération bi est-ce que xam nañ lan mooy communication boobu la mooy mu ngi noonu ñàkk xam sëy parce que des fois nga dig nga gis góor takk jabar te xamul lan mooy fu sëy jigéen timit des fois dugg si sëy te du xam tamit lan mooy waru lan mooy wareefu sëy parce que pour ñoom sëy ba léegi doxaalante la te déedéet sëy ak doxaalante ça bokkul mais loolu noonu dafa jot fi mu toll nii jeunesse bi xam ko ba pare pour xam nag fi mu toll nii base sëy bi lan la mais des fois da ngay gis. ay góor yo xamante wala ay jigen góor ak jigéen nekk sen seen biir nekk kenn ku ne téye sa téléphone bu heure sexe bi doté kenn ku ne da ngay lembo rek comme li nga wax léegi mbot sa morom. mbot sa ci communication bobu ngeen wax déjà dañ ne la yow jour bi nga xam ni da nga wara soxla sa jabar sax won ngeen xëy ci suba ci ku nek di def sa morom signe bu wane ne. ki tay war nga soxla sa borom ki may lay bëgg na li xam nga yow boo nee. Euh, jigéen des fois mooy defloo góor leneen te ñu ne jigéen mooy defloo jigéen góor lu mu lu mu ko bëgg a defloo uh-huh. kon juum nga foofu uh-huh. ndax déjà yow boo amee communication ak jabar ji nga nekkal yow yakarna nga xey xol sa jabar beut bo xamne yang koy oh. sentir mou oh. lay sentir oh. yow do yakamti lu asaman si gemu ba ngeen tej sen bu kon yakarna koku munu munu la baña satisfaire est-ce que loolu ñëpp ko xam wa mais dañ ko wara jëfé ni nga ko xamé ni est-ce que loolu ñëpp xam nañ dañ ko wara jëfé amna ñom ño xamanteni ñoo xamante ni pour ñoom euh, bëccëg gi ni rek sen jëkkër yenn ak ñom rek euh, da leen di déranger man tok na gis ko xamne neena ma man amna naa jëkkër wax ci gemmiñam uh-huh. mais man mën na ni seyuma sama jëkkër bu ma soxla daf may violer Uhh. parce que day toog di jàng ba xaaju guddi man dinaa nelaw ba fàtte man damay jékki-jékki rek gis ko sama kaw fa muy pareeg ma it benn la ba aw ma bànneexu sëy loolu yëpp tamit ay àq la. àq yoo xamante ni yaa ngi yore jigéen. loolu nga takkee jigéen indi ko ci kër. Mhm. tamit munoo am benn communication bi ak moom. jigéen boo amal communication. dina la satisfaire rek. dëgg jërëjëf waaw hmm. ah, loolu moom damay d'accord ak ak yow bu baax a baax. jigéen non non non foofu loolu damay d'accord damay d'accord parce que jigéen boo ko soxlaa am na noo xamante ni noonu ngay doxaleeg moom bëccëg gi. yéen xamoo leen noonu la ñu doxalee jigéen seen bëgg-bëgg non non am na non non am na ñu ko xam waxtu boo bariwul <laughs> nañu nañu nañu wàccaat tuuti rek mm-hmm. euh, ñu duggaat ci mm-hmm. wàllu bi nga xamante ni mm-hmm. li tax léegi xale jigéen yu bari di am jëkkër am far sa saar bi ci lañ bokk mooy saabu bi ndax góor boo koy jigéen ah, góor waaw góor boo yoree waaw mais bi affronté na ma nag nee na ma góor saaram moom parce que jigéen boo ko yoree sa kër nga war koo satisfaire satisfaire woo ko <laughs> bu génnee ci biti gis xale bu góor bu mel ni moom wuyu folaas ko jox ko lu neex bu subaak jàmm mu wuri ko lu jëkkëram mën a wax gisatu ko seytaane dugg na léegi ñu bàkkee jigéen ñi am jëkkër am far Ndeye Fatou Mbaye mu tem lay doon incha allahu rabbi fii ci la seen leader dama ko cee ñam tuuti rek ndax nag foofu dama cee bëgg dugg ndax am jëkkër am far bari na ci société bi yaa ngi dégg te léegi fu mu ne nii mère ba gën a màgget nga yaakaar dafa yor kóor a yor kursam toog jaamu borom bi subhaana wa taala tey moo la gën a mën a wut ku muy làkkool moo la gën a mën ku muy jokkool te mu ngi yor àllaa xale bu ndaw mu lay tokkur mbuut nga wut xale bu daw ah, mu lay jur kaat nga foog ne yaaree ngay naka naxoo sa bopp naxoo kenn de naxoo sa bopp bis boo yaakaar sa bopp nga nax naxoo sa bopp ndax lu tax may naxul boppam mhm. li muy jël dafa ne moom boppam la nax mhm. xale bu góor bi nga xamante ne mooy jël dooleem di ko joxe kooku la nax ba mu ndërmeelu jot na nag xale bu góor bu ne xam moom mooy kan waaye yéen góor ñi bàyyi leen saabu yi te wàññee ko ci jeeg ji Ousseynou Diop sa kàddu gu mujj. waaw di am kontaan ak mbégte tamit bu baax a baax di bokk ak yéen it plateau bi di amit euh, mbégte ci émission bi nga xamante ni tey def nañ ko parce que lii dama naan tey ñu bëgg dañ ko soxla. Mm-hmm. ñu bëgg soxla nañ tam bii ñu ñu ñu koy waxtaanee kon nag maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan à travers la seen leader jërëjëf sama gars yi ba beneen yoon incha allah. incha ñu def tàggoo bu dul tàggoo rek gàtt loolu waaye nag bu mujj rek ne tey moom sama seex dama koo mere lool lool lool ndax man bëgguma ñu ne la asamaan saa ngi nii nga ne gisuma ko ah, say loolu la fi def waaw di wax ni góor ñi uh-huh. ñu gën a bàyyi xel soxna yi uh-huh. waaw nañ bàyyi xel soxna yi ndax ñun nekkuñu fi pour kenn pour pour yéen la uh-huh. takk jabar indi ko ci kër jël sa xel mi yóbbu ko feneen <laughs> foo faut naan damaa feebar damaa nangam nañ ko ba soxna yi ñu ngi fi pour yéen la utiliser leen soxna yi te bàyyi saabu yeeg matelas yeeg canapé yi loolu laa am ci lu may wax ak garab yeeg <laughs> bis yeeg tataa yeeg njaganjaay yi naan laa puusal avancel demal ne mel ne kenn ku nekk war na cee mën a bàyyi xel ndax bàyyi jàmbur bu ñu jàpp tataa duma ndax lan riisuwaate bàyyi jàmbur bu ñu jàpp ci oto bi ñaga ñaay yi duma ndax risu waade sa dom bu ko déggee du la neex mu melni sa su ne bu ñu taxawaatee fii mbégte am ta bi gàtt na lool nak waye nak li olof jay na li duuf ci nak yi xaju ci li dañuy robbu lobal benen yoon rek inshallah allah rabbi ñu jàkkaarloo waat su ma taxawee fii damay am mbégte lool nak nuyu wa kunu ndax na euh, faatu mi guddi guddi kunu waaw ñu am fi meer bu baax meer bo xamanteni pap saw ñu koy nuyu de passage moom ak jigéenam joju abibatu bi ñu toogee waaye kunun ku ne xam na kunun ni meloon démb ak barki démb mu nekk ci liggéey bu mucc ayib liggéey boo xamante ni tabaarkalla ndox mi kunun bari na ren doomu aadama yëpp sonn nañu di nuyuwaale suñu imaam suñu chef de quartier imaam Moussa Tall sonn na torop ndax ndox mi dafa dugg ci këram dugg fépp wax dëgg yàlla borom kër gu ne nag boo sañoon soo xëyee boo daane jee sa doole bu guddi jot nga am foo sa mbag ak sa njaboot waaye boo ñëwee na ci ndox mi jot na kilifa yi taxawaat ci bu baax a baax xam population bi sonn nañu sonn nañu lool des fois xam nga duma taxaw fi ba jóg te laaluma ben point bu ndaw lu melni sumbulu baccel amna pat bo xamanteni ñu ngi koy ci internet bi di ko ngawte ngawtee te yow yaay sumbulu Ousseynou Diop moy sumbulu man may sumbulu ndax ay kat lañu porteur de bois bo taxawé gis lo wara wax wax ko buñ la encourager wul wala kenn saga wala kenn xas ndax ben doomu adam bo saga rek saga nga population xamanteni ko xamanteni bu ne demee ñepp na tek di la deglu sumbulu fi nga tak sa tank bu la kenn découragé loo xëy na wax kenn mënu koo bañ waaye waxal fa nga war a waxee mm. bis boo noppee rek nga bàyyi ñëpp ñu xool li gën ñu def ko li gën nag mooy suñu borom moo wax war a def mooy dund ko métti gii mm. dañ ko wax te dee population bi sonn nañu litre diwlin ñeenti téeméer musul am ci senegal mm. saako soble 50 mille musul am ci Sénégal sonn nañu dee nañu wett wett wett wet wett ñuy wax président Macky Sall yaay suñu pàpp yaay suñu yaay yow ak sa soxna yërëmal ak san bi jàppale ñu ndax ki daan sóor gën waa libar mënatul sóor kilo léegi ki daal sóor kilo ak gën waa libar mënatul sóor xaaju pot métti na tar na ñu ngi sant borom bi subxanahu wa taala ñaan yàlla suñu borom li sëñ Fallou Mbacke doon wax rek fekk am njaay ma mu ngi am rek ñaan borom bi subxanahu wa taala dañuy kàttan ci taxawee na indi wecc ju yal na yàlla defal jàmm defal ko mbooloo mu julit ci barke yonente bi alayhi salaatu wa salaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah